barke borom Touba kon mbokk yi ni leen ko waxee woon ci biti rek tàbbi nañ ci biir salle bi fi nga xam ne ni ñu ngi xaarandi Serigne Mountakha Mbacké ngir mu ñëw nag ñu door njàng mi wala bokk ñu wéyal njàng mi fii ci biir salle bi wax nañ leen ko ci biti kuréel 3B euh, bu Daara Dakar ñoo tàmbali kuréel bi dañoo toog nii. waaye tey jii nag ñu am ay gan yu tedd yu bàyyeekoo ci ñaseen yi jóge Casamance euh, ànd ak seen njaboot at mu jot ñuy ñëw di ziar si bi tey nag ñu am taw feexu teewe jataay bi kon sëriñ bi xam naa bu leen nuyoo ziar leen ginnaaw euh, présentation bi mu ne ko ginnaaw bu leen niyoo ziar leen ngeen def benn présentation ngir gën a xamal euh, mbokki taalibe yi gan yu tedd yi ñan la ak lan moo waral jéego yi ak euh, lu tax ngeen koy def ak nu ngeen gisee jataay bu am solo bi fii ci Touba ànd ko ak Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké alhamdulilah alhamdulilah summa salaatu wassalaam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad bun Abdullahi wa qadimihi alayhi salaatu wassalaam e, maa ngi nuyu ñëpp nuyu bi dem koy tàmbale ci si Mountakha ma tàmbale ko si Mountakha boo xam ne moo tax mu ñu ñëw fii mais du bii mooy suñu formel yu ñëw ñëw nañ fi daawaati jéeg ñëw nañ fii daaw ñaa ñaata yoon ñu ngi ñëw fii di ko siyaare si ci weer koor moom ci yaatuwaayam ak mbaaxaayam moo tax toujours waa Karantaba suna Karantaba Casamance foofu la bàyyi ko moom chaque année dañuy def foofu jotaay bu mag boo xam ne màggal lay doon màggal boobu toujours def may yónni ay njabootam ñu ñaw teew foofu ci jëmm Sëñ Tuuba ci jëmm Sëñ Tuuba parce que dëkk la boo xam ne suna karanta ba dañuy dañuy bëgg Sëriñ Tuuba dañu bëgg a Sëriñ Tuuba donc ndongo daara ñuy fa nekk ñëpp kasaayit lañuy lañuy lañuy la ñuy nafar tout le temps donc chaque année dañuy ñëw di di di ko siyaare si encore di ko ñaanal gudd fan ak weer xaadim rasul mbiram moom mu luñ ci mën a wax du ci du sori parce que comme comme yàlla lu mu wax o eh, fa innama yujahidu li nafsihi wa an lil insani illa ma shaa wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujjaahu li jajaa al awfa wa anna ila rabbika muntaha Seexul Xadim lu mu liggéey ñëpp gis nañ ko lu mu liggéey ñëpp gis nañ ko liggéey la boo xam ne léegi njariñam àdduna ñëpp la dafa nekkul kaasa aama la aama aama ñëpp ñëpp ñoo ko bokk ñëpp ku sant Mbàkke ku santul Mbàkke ñëpp bokk Seexul Xadim ñun fi ñu jógee trois cent et quelques kilomètres la di ñëw fii di siyaare si Muntaga di siyaare njaboot Seexal Xadiim di siyaare taalibe ñëpp di siyaare Hizbu di siyaare leen yéen ñëpp parce que seen liggéey liggéey bu mag ngeen soom liggéey liggéey bi rafet na ku ko gis rek da ngay yéemu da ngay yéemu man de daal naa ñëw fii tout le temps mais bu mel ni jotaay musuma koo fekk bii mooy sama premier yoon kon mu nekk ay jéego yu am solo yoo xam ne nii bu toppee taarixu islaam mag ñi doon nañ ko def ngir dundal diine ak lislaam kon mel na ni taxawaay boobu ngeen yeesalaan seen diggante ak Cheikh mun Mountakha Mbacké loolu itam ñu bëgg nga gën cee yaatal bu baax a baax ci bennoo gi nga xam ne ni seen jéego yi firndeel na ne islaam benn la te nii la war a demee. ah comme yàlla lu mu wax rek lu mu yàlla wax rek innamal mu'minuna ikwa mais ikwa boobu dañ koy doxal tout le temps. ci suñu diggante ak si ñu fi jiitu woon bala depuis eh, si Abdou Lahad ci foofu la ñuy tàmbale si Abdou Lahad la ñu commencé woon di ñëw di ñëw fii di ñëw Sëriñ Saliou di ñëw ba ba ba nag ne Sëriñ moo fi nekk yàlla na yàlla may ko gudd fana ak weer ñu ngi koy ñaanal gudd fana ak weer ak tawféeg yéen tamit ñu leen ñaanal gudd fana ak weer seen liggéey na ngeen ko continuer liggéey li ngeen nekk liggéey lislaam moom ku ko nekk ku ko nekk doo delloo gannaaw maa ngi wax wax tuuti ci soose tamit parce que mbaadi mandinkoolu min nu yaalon ko mbotane feeje suna karantaba suna karantaba alkaali almaami mbaal bee konton na walla ye mbulanan kana kana jam ka futanan siri mundagama ka konton ala yanin ciilaye anin shahar ramadan al mubarak hormo sabula sawosan ko aka ce ñami karan daba fana ka hew hewo min cenna gamo min yalon ka ceta game bate ko gamojen game fawonte magalolam o magalo kana kaw fana buña sindi ama comme sawosa ka ce ñamin kata kuwo ka sola ate fawle ka ñin ka sola sawosa e sahru ramadan o kono sunkaro kono kam n cili pour ngana ngana naye ñooje ngadduwa e simalani jata kende a fana e duwa sate ya e duwa ɓanko ya e duwanñe na silo mo walti e touba sate kono Euh, jërëjëf euh, ci kàddu yu am solo yooyu ngeen tekki ko daal di koy tënk ci euh, kàllaama soose mu nekk kàddu yu am solo yoo xam ne nii rek day fësal bennoo gi nga xam ne nii gis nañ ko tey ci jullit yi nga xam ne ñoo féete ci réewum Sénégal wax nañ ko léegi mu nekk ay jéego yoo xam ne ni naka jekk nii la ko mag ñi doon doxee dem dëkk ak dëkk réew ak réew ngir dëgëral jéegoy islam yooyu nga xam ne ni benn kese la kon mu nekkoon ay gan yu tedd yoo xam ne nii ci fàttali ñu ngi bàyyeekoo ci diwaanu Casamance at mu jot nag ñu ànd ak seen njaboot ñëw di yeesal seenub ziar ci cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des mourides yàlla na fi yàgg loolu te wér ni mu ko waxee léegi nag tey ji nag di taw feexu ñu am taw feexu fas yéene fekk jataay bu njëkk bi ci dundal koor gi nga xam ne nii fii lañ koy def ci kanamu sëriñ bi di yëkkati xasida di leen fàttali rek programme bi incha allah kuréel gi toog mooy kuréel 2 bu Hizbut Tarqiyyah Touba ñi nga xam ne ñooy yëkkati xasida yi jamono yi di kuréel 3 b bu ndakaaru ci kanam tuuti bàyyi Mansour Seck di suñuy jëwrin dina leen dalal ñu biral programme bi nga xam ne ni moom lañ fa yéene jàng tey ji di leen gën a ndokkeelaat bu baax a baax ci ànd gi ak topp gi ak wóolute gi waaye nag euh, ci euh, ay ay bërëb yu fasante ko ngeen di topp liggéey bi moo xam ci réew mi wala bitim réew di leen jox dox daje ëllëg rek incha allah di ñaan daje ci ngërëmal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf رباعي كتاب الله والسنة التي حديث تفسير لست سارسي يقول لي أخي بقرآني المنى ولي بارك الوهاب في العين والوزير صراطي صراط المستقيم

Bado na ولا يلازم la asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon ñi ngi nuyu ñi teew teewlu ñëpp ci jataayu almashrabu saafi min almanbai shaafi tey di ñaar fukki fan ak benn ci weer Ramadan dëppoog bisub àllarba ñu am tawféexu fekkewaat bis bi nga xam ne sëñ mun Mountakha Mbacké mooy ki nga xam ne moo ko digle ren di ñeenteelu at ñu koy def ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te mu ànd ak wér. jataayu jàngum xasida jataayu jaamu yàlla jataayu teewlu ak dund weeru koor bi ni ko Serigne Touba digle woon loolu mooy li nga xam ne tey mooy li ñu fi dajalewaat tey nag kuréel gi nga xam ne ñoo ay njàng mi mooy kuréel 2 bu Touba ci njiital sëñ Modou Diop waxoon nañ leen ko démb ñi ngeen dégg ñuy gàttandu tamit mooy kuréel 3B bu daar Hizbut Tarqiyyah bu Dakar ñoom ngeen dégg noonu ñuy jàng di xaar sëriñ bi yegg si looloo waral itam ñu fas yéene dalal kenn ci ñoom muy Serigne abu Khader njaay sëñ Jili njaay ngir mu dégtal ñu programme bi nga xam ne moom lañu fas yéene jàng diggante daaj yi ak xasida yi sëñ ñu teewlu la. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbokk jullit yëpp di di ci weer bi jiital ci nuyoo bi sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu tànd loolu indi programme bi nga xamante ne si moom lañu fas yéene jàng tey ji kuréel bi jàng wax nañ ko muy kuréel de Touba. xasida yi ñu war a jàng bokk na ci mooy xasida yi nga xam ne suñu muntaxaa moo ko jox kuréel yi mooy xasida ramadan yi raditu an rabbil aradi wax sama ci la bokk ak raaya suñu saaju ak anta rabbi si euh, waa daaru moxti ak yaar bi Moustapha sëriñ Massam loolu lañu fa war a jàng tey incha allah jërëjëf sëñ ji li kon ñu fàttalewaat ne sëñ Modou Diop mooy kii jiite kuréel gi muy kuréel 2 bu Hizbut Tarqiyyah bu Touba ñu leen di sant lool di leen euh, ñaanal tamit li tax tamit ñu ñëw fi teew sëriñ bi dimbale leen ba ñu defee ko ni ko sëriñ bi bëggee kon sëñ ji li na manifestation sur les écrits de Cheikhoul Khadim, ces séances de déclamation des écrits de Cheikhoul Khadim euh, qui a été initiée par le vénéré calife général des Mourides, Cheikh Mohamed Muntakha Mbacké. Nous prions ardemment pour qu'Allah euh, lui accorde une très longue vie et une très bonne santé. Lui qui est l'initiateur de euh, cette rencontre, de ces séances de déclamation quotidiennes. Euh, qui ont débuté depuis le premier jour et qui vont continuer jusqu'au dernier jour, Inch'Allah. Euh, nous vous disions donc que c'est le groupe 2 de la Dara et de Touba euh, qui sera à l'honneur dans la salle et sous la direction du maître de cœur Serigne Mout qui va diriger la prestation qui sera faite par ce courrier-là. Ce que vous entendez en train de déclamer les écrits du cher euh, qui attendent l'arrivée du calife, c'est le groupe 3B de la Dara et de Touba Et ils ont également la charge de raccompagner le calife et quand les, la déclamation sera terminée. En attendant, ils sont là, distillant des chassis de suave euh, en attendant l'arrivée du calife, euh, une arrivée qui ne saurait tarder. Et nous disions également que toutes les sections, tout, tous les secteurs de l'organisation sont à pied d'œuvre. Nous voyons au premier plan la police qui s'occupe de tout ce qui est aspect de euh, la police qui s'occupe d'aspects de, de sécurité. Et nous voyons donc la, la police qui s'occupe de la sécurité. Il y a également la, euh, les, les, les, ceux qui sont euh, affectés à, au, euh, au premier secours, c'est la Croix-Rouge. Il y a également les, ceux qui doivent s'affairer autour de Euh, des autres au moment de la rupture du jeûne qui sont chargés de la distribution des mets de rupture. Il y a également le protocole, ceux qui viennent accueillir les euh, dignes frères du khalife, les illustres frères du khalife euh, qui sont là chaque jour, et les habitués maintenant. Nous pouvons citer Serigne Bassirou Mbacké, le porte-parole du khalife, Ibn Serigne Abdou Khadr. Nous pouvons citer Serigne euh, Serigne Moustapha Ibn Serigne Abdou Lahad et son frère Serigne nous pouvons citer Serigne Gallas Kaltoum, fils de Serigne El Bara, un petit-fils donc de Serigne Touba. Il y en a d'autres également, nous ne pouvons pas tous les citer tous, mais il y a également des habitués. La salle également le même scénario, elle est quasi pleine depuis le début, n'est-ce pas? Euh, après, juste après la prière de midi. Et c'est une situation que l'on vit chaque jour et il en est ainsi. En ce qui concerne également euh, la distribution transmission, évidemment, les, ce sont des colonnes couvrées, toutes les euh, chaînes et euh, tous les groupes sont, se donnent la main pour faire un travail, n'est-ce pas, impeccable et qui est distillé à travers le monde, à travers tous les réseaux qui sont possibles. Euh, C'est également une situation qui est à, tout à l'honneur, n'est-ce pas, de ce qui se fait actuellement dans cette salle où des yeux sont braqués, où tous les gens sont concentrés pour voir également l'arrivée du calife qui ne saurait tarder, nous le disions chaque jour. La sonorisation également n'est pas en reste, c'est elle qui distille ses, sonor... Euh, ses déclamations, n'est-ce pas, à euh, plusieurs kilomètres à la ronde autour de la résidence des hôtes de Cheikhoul Khadim. C'est dire donc que c'est un décor bien planté pour que les choses, n'est-ce pas, se passent comme on l'attend. Et nous voyons également la flèche qui doit venir avant l'arrivée du calife. Il y a également ses accompagnants, le staff hein, ces lieutenants euh, qui sont là toujours hein, euh, prêts à intervenir, euh, prêts à accompagner le calife. Et nous voyons donc que c'est une situation où les gens, n'est-ce pas, en redemandent toujours. Voilà donc le décor à Touba pendant ce mois béni de Ramadan, ce mois qui, n'est-ce pas, qui suscite une certaine tristesse, un certain pincement de cœur au moment où il doit hein, nous quitter sur la pointe des pieds, puisque c'est le lieu de le dire. On est bien à euh, 8 ou 9 jours de la fin de ce mois béni de Ramadan, c'est dire que les choses sont passées très très vite. Et là, euh, ce que les gens vivent en ces circonstances, n'est-ce pas, est d'une euh, suavité telle que les gens, n'est-ce pas, ne sentent même pas le temps passer. Et nous voyons tout autour, n'est-ce pas, de la résidence, les gens s'affairent pour scruter la voiture du calife pour voir si elle arrive. Et nous voyons sur l'image Serine Moussa Nawel, euh, cela veut dire que le calife est proche. Nous voyons également Serigne Youssou Diop, le responsable moral des Hizbut-Tarqiyyah, à qui ce dossier a été confié et qui se bat chaque jour pour que tout aille, tout baigne dans l'huile. Euh, voilà donc pour ce qui est de euh, ce que nous avions à vous présenter aujourd'hui. La proximité de Serigne Moussa Nawel, c'est la preuve que le calife n'est pas très loin et bientôt son, sa voiture va arriver dans la salle. et également ceux qui ont suivi le protocole, qui l'ont compris, savent que son arrivée dans la salle également et le démarrage de la prestation pendant une heure d'horloge. Nous vous laissons donc suivre les minutes qui restent hein, pour que les choses, n'est-ce pas, se déroulent sous vos yeux. Et nous reprendrons l'antenne, Inch'Allah, dans, euh, juste après la déclamation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.